<laughs> ah neex de. tu crois que c'est c'est Sénégalais seulement qui connaît neex neex. <laughs> je connais neex neexoo. <laughs> ah dem ba chaque. neexoo. ah neex kay neex. Madou Mbaye. ce qui t'a fait tout de suite là c'est doué wala. ah. eh eh eh voilà soo ñëw ma dolli la cent pour amafutha ami mna ebozeni sawo yeyi <laughs> eh, mo imine ndiyeyeni ke tyaka malume ungathi ami ndizabaswazi mem la ungathi maswazi C'est pourquoi moi j'ai choisi même là. Moi tu sais les nerfs, nerfs là. Tu sais ce qu'on va faire là même là. Ouais. Tu sais, t'as différentes erreurs. Maraay. non attends. léegi nag yow pas poli je veux que tu sois mon ñaañi moi dakaay toog ñaañi. ñaañi mooy lan lan mooy ñaañi. on dakaay toog saa saa yow. yow yow yow mi pédophile nga de xam xale bi tuuti la. dama xam dara ba nga bëgg ma wax ñaañi ñaañi. ñaañi mais là-bas. <laughs> on dakaay laisser alors. ah ma ñëw. on dakaay laisser tomber. ah. waaw kon maa maa ngi ñëw laisser nga tomber de. bëgg naa petit même là tu sais ce qu'on va faire là ah. <laughs> on va aller dans la chambre là même là on va faire neex neex neex neex neex ak ñu dañu ay neex neex neex wallaay du ngeen